bu ngeen xoolee ni assemblée bi di tëddee moo xam ci débat yi moo xam ci présence yi gis nañu ne jigéen ñi ñu ngi gën a affirmé wu ñu ngi wax seen xalaat sans complexe moo xam ci nasaraan moo xam ci wolof beneen bi boo xoolee femmes yi nekk député yëpp ay femmes leaders lañu ku ci nekk gox ba nga dëkk tu incarnes un leadership affirmé si sur le plan national it yaa ngi def say jéego donc seen prestation tey bu ñu ko doon noté c'est des prestations très honorables la jigéen ñi di def fii ci parlement bi ndax seen taxawaay mais kaddu yi ñuy yëkkati jëmale ko ci askan bi muy doléance askan bi ñuy porté góor ñu yóbbuwuñ leen yóbbuluñ leen dara ñu ngi def seen liggéey te li ma gën a neex si assemblée nationale ci femmes yi mooy saa bu ñu wootee jigéen ñi ñooy njëkk a teew jigéen ñi ñooy ëpp aussi si ñi teew fii la ñu voté loi yi protéger femme mais fii aussi comme ni ma ko waxee woon ci bés bi mu amee la ñu gis ñu agressé jigéen fii la ñu gis ñu violenté jigéen te kenn defu ko ku dul suñu ay collègues moo tax ñu koy ñaawluwaat dañuy wax ne jigéen du pour dóor jigéen du pour saaga jigéen kenn du ko toroxal donc combat boobu ñu mënee woon bi ñu agressé suñu collègue Ami Ndiaye nga xam ne dafay nekk way wu ñaaw ci fii ñu nekk di assemblée nationale dañu koy wéy di wéyale lu tax ñu wéy di ko def di ko xeex mooy dañu jàpp ne jigéen dañ ko war a protéger jigéen fu mu mënti nekk dañ ko war a wan ne jigéen nga te jigéen ju ñu war a protéger nga moo tax ñun en tant que ay femmes du ñu nangu mukk te du ñu fekkee mukk fu ñuy toroxale jigéen wala ñuy violenter jigéen wala ñuy agresser jigéen moo tax à chaque fois bu ñu amee occasion dañu koy dénoncer donc di wax ne plus jamais ça au niveau de l'Assemblée nationale